Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul allama abonné leen ngeen jotin mboolem xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi leen ñaan nga abonné te nga bës kolos bi yokk ñu tuuti sens a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 بينما الوحط موهن بين دموع له وان دموع ني دي اي رنقنا كرقلا كرخراخ النجيني ronqañ yo xam ni ngi taru ba melni ni xursu xelitu xursu lu jëriñ na xamni génn ndox la ronqañ la waye li tax mu taru ba kay koy ak kalitu xursu lu jeyni nga xam bo demé ci tënkat yi ñi xelli xurs bi wala or bi wala jamaa bi xelit yu muy xelleeku ni mi taaroo loolu lay nirle ak eh, ronqañ waaye li tax jooyi ronqañ yi génn di taaroo noonu kami jooy ak ka tax muy jooy loolu tax ronqañ yi taaru noonu lu nekk rek lam niru lam bëgg lay niru moo tax yonent bi mu bëgg ba tax ko muy jooy jooy ji sax ronqañ yi génn sax ndox waaye mi ngi taaru njër ne rek ki muy jooyal wala ki tax muy jooy moo taaru noonu tu barhinu dafay tegtale ala sidqi sawqi ci dëggu sama cofeel bay na mal waxtu mawinun te fekk ñu ngi ci waxtu woo xam ne ci digg guddi la gis ne bàyyi radiallahu anhu waxtu wu nekk rek mi ngi jooy ngir mbëggeel bakaytu فأفنيت دموعا فما البكاء سوى حالة للقلب من حرقة الشوق جوي نا جوي جوي بس ما رونق نجيح بفكر رونق نفجيح غير حال بوخمنا كفالة بجلجي مني مني نكا قلب حال بو نكرك xaal boobu muy tagge yonente sal lai sallama di jokkoo ak moom moo waral mbëggeel gi di tat waxoon na ne fali كل وقت حالة بعد حالة وحالة مدح المصطفى خير حالات وقت نيك امنا شي حال حال بو نيك تام غناو حال بو نيك امنا بين حال بو نيوم waye sama xal ak bu may tagg yunus sallallahu alayhi wasallam niruwut ak benn xaal xaal boobu ma koy ak yonent sallallahu alayhi wasallam ba muy jooy أنا وأننا وطال بكاعي فالسفير جهنم يهونه مني ضموعي وأوساتي يا جوي مني تفعل جميع من السفر أو جهنم أرون خني نك ديكو دوية دال ديكو فاي مجيل انت بسلا سلم مكو تخ دي جوي فانا لغنى دموعي على القدين كخرب موهنا مع الشيب والأجناس والأجناس ثم رخوض دليل على ما قد دهاني وإنني عرقني حال في الوضاد شديد دهاني غرام حرم النوم موهنا وحل وحل وحلنا حرقي والغرام وقود لقد حرم الوجز حلال محللا حراما ولا قد دعو شديد بين samay ronkañ mu ngi sama kawi ndax comme baagi ndox yi dóor di ndotteeku ci digg guddi ànd ak nag bejjaaw gi waaye foofa ni ña ngi seen gàdd gi ñu ngi seen digg guddi dina gis nga mag mu dem ba am bejjaaw weex di jooy ngir mbëggeel bàyyi ne sama tegtal nag man mooy mbëggeel yi mooma yëm nga xam ne gaar na ma xaal boo xam ne cofet gi dafa tat lool waaye yëm itam cofet gi nga xam ne daf xaraamal ci man nelaw ci digg guddi ba tax gis ne bàyyi ci nan baata moo xi nan ci digg guddi ndax ñëpp di nelaw ngay jànkuwanteeg cofee li mbëggeel sopp soppi bi waxtu wu nekk nag gis ne yi koy gaar ci digg guddi la koy gaar ndax ci lay amee jokkoo moo tax ñaanal na guddi ci feneenam wax ne ne jasallahu anni zulmata leyli wa duja fa fiha yunaalu yunaalu sobbu alxabbi muxraja dégg bàyyi ne bëggeel gi xaraamal na ci man lu dagan li xaraamoon li haram itam mu daganal ko mu ne man ndax wax naa daa qadaun shadidun man ndax loolu laa tegu way kon ci fanam junti bi salaay sallama moo koy jooyloo moo koy teree nelaw moo ko xéem mooy ci mom ni dagan muy nelaw moy daganal ci mom ñàkk nañu itam xanaa haykalin maa ngi ci jëmm jëmm ji mooy avion bi fawqal qamaa'imi ci kaw niir yi qasidan ma jublu madaaraka di ziyaara sa barab bi ahlan ala naasi yow mi gën a kawe ci nit ñi xalqan ci min na wa ahsan ak jikko ak taar نانون لكو عيسى دوخون ولا بوك منك لم ترق عيني واجمل منك لم تلد النساء قلحت مبرعا من كل عيب كانك قد قلحت كما تشاء اي آه باي وعنني نني أحيى الله جنمت نني عيون صلى الله عليه وسلم maa ngi ci jëmm joo xam ne mu ngi ci kaw niir yi di xuus waaye sa barab bi laa jublu di la ziyaare si yow mi gën a kawe ci nit ñi gën caa taaru gën caa rafet mbind muhammadun maanaa yaa muhammad yaa xayra anaami yow mi gën ci mbindeef yi fama tara kanaa gisoo li tey min ñen ko xamne ne mutajam la maana abadahu hubbu ci fel gi daf koo jaamloo shadidil hubbi kay aji tar ci cofeel kay aji tar ci cofeel lol ci mbëggeel wa yëx sinu tay rafetal la mat xa tagg sa mi gën ci minni fi man nak lo gis ñaan ci koo xam ne jaam boo xam ne mbëggeel gi moo ko jàpp jor-jor moo ko jaam loolu imut ci bëgg la waaye mi ngi lay tagg imut tagg la waaye mi ngi rafetal tagg gi feneen waxam na ne waxsinu tirsi bisifaati sifaatihi wali miqwalun fi lmustafa lasin quxun pinin mi somadaji damay taaral di mel nan melokaanam bañeel ma ay wax yoo xam ne ma koy jumi ci jumi ci Moustapha yoo xam ne dafay fasaa ci balaaxa usulu mantiq lépp di ñëw ba mel ni taar ba gën a kawe ci fasaa إلى جمعك المضاح ينمى وإنه أسير هوى لم يلف في الدهر يتقن يتقن سصب بينك ينمى دنم أسكنا إلى جمعك جمس مولا المضاح ويتق باينكو soppi بينك nag di Ibrahima danañ ko askanal ci sa ظهر كعبك دنگ وإنه نكلي متيمت أسير هون كن جاب جر جر تفعل لم يلفا تفكت فا يتقن دقرنيا في دارس جمل تواضع في يعني دقي ملا وحنا سا سبب سبب كنك بدي برايمه xamne ne daf ko cofeel gi moko jamlo mo lay tagge waaye mu ci tagge la mi ngi rafetal mi ngi rafetal tagge gi mo ne nañ ko boole ci sa mbolo ñi lay tagge te feneen waxoon na ne fa bayni wa bayna almaadiina saraabiqun xuurun fa maa jibat li matxiya sarbaxu sama diggante ak tàggkat yi ñiy tàgg sallallahu alayhi wa sama digënté ak ñom ay xal na moo fi dox yo xamné ne mënuñ koo dagg xëy na wax ne tawaytu madixa almaadixina jamiaim bi ayni ar ruuxi zil amri wal khalq man yoni gañ ñi tagg yonent bi salaay sallam mbooleem ñoom ñëpp seen yoon yi ma ko taxañ ci ci kan bi ayni ar ruuxi zil amri wal khalq ci jëmmu xaa nga xam ne mooy roxu borom mur yi ak mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam fa kun lii fa kun nekkal waay yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala fa kun yàlla nga nekk lii ñeel ma shafian ak ràmm yaa safiu yow aji ràmm fa kullu man képp ci ñoom si waaka keneen ku dul yow faqirun aji xaajoo la li shafaati ñaal saramm gi mu'linun di aji feñal bis bi nga xamee ne yonent yeb kuñ daw jëm rek nga man suma bop la tal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ubiram njëkk moom kenn du ram ñëppay tit ramu anbiyaawi bañ mëna ramé ramme mursalini bañ mëna ramé ramme awliyaawi bañ mëna ramé ramme kenn ku nekk di ramm shaqam bàyyi ne ko man yow yow mi ay ramme man keneen ku yow yaakaaruma yow la yaakaar bis bu nga xamne ku nekkaa nga jégué ko rek baram صلى الله عليه وسلم وإني تنك من أرجوها دنما يعكاركو بشير مي بقلها هاكون ولم أنا تأمت لها نيال لولولة سببا من السبب غير الكبائر نما أي بكارك toog na ne def ne feeñal ko mooy ni ma la waxoon rek tawaadaa bi nga xam ne awliyaaw yi dañ koy def naam inna xayra nnaasi arjuhu shaafian li nafsi النفسية وللأخلين isjihtu xashan waawee dëgg yow mi gën ci nit ñi yow laa sama ñeel sama bopp ak sama ñoñ waxtu xamee ni dikk naa di toroxal moo arjuha bashirun walam anal laha sababan xayral kabairi poxlene te amul nag benn sabab muy sabab loolu lu may rek yow laa yaakaar فإن ظننا بلا سبب مني معافا فإنني رجاعي كبير في منازي ومنجاتي أمر بن سبب تكيتي من nu may yaakaar sa njéggal te man loolu laa yaakaar gu màgg ci wéeru la ak yow mi xam ne yaay musal ñëpp bis bu ñëpp tiitee ataytuka dikkal naa la laa arju te yaakaaru ma keneen ku yow muhammadun muhammad wa anta te yow yaay sama ziyaare waay يولاي زيارة أنت يوم معدن بلنغا نلقيرين نيالهيو يب صلى الله عليه وسلم نفاران شفاران ترنا شي تري ماكي رن تيرين جكي ببطحا أي بطحان بايدا من نور نكرم من بيتي شنيبة دي كعبة تقبلن يلنا نغو قديما لقيكت رفيقا set andoor nit jinaani ñeel aljanna fa yuxsanu ba digleef ko mbuddum bàyyi na ko ca faaraan ca batxaan ca néeba maa ngi ñaan yàlla yàlla nanga nga nangul waay bëkk néeg bii di ibrahima muy sa àndandoor bis ba nga xamee ne yaa ngi ràmm ñëpp di leen dugal ñuy dugg aljan parce que yàlla na jokk ma rasulullahi yow yonentam yàlla bi maanaa yaa rasulullahi taa taha taa am na ñu ne mooy haadi waaye Cheikh Ahmed Tidiane wax na ne ni nga xamee ne yonente yàlla aadama atwaaram yépp di ko yàlla may yépp mi ngi ko amalee ci ajuma ci nañ ko bind ci nañ ko dugalal jànn ci nañ ko wàccee si kaw suuf ci nañ ko may xawaa dégg nga mboolem atwaaram yépp ni mu nekkee ajuma yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom maayam yi maqaamam yi maqaama is nayi is nayi la is nayi ni la semaine bi li ci jiitu du altine yowmal axat yow yowmal axat muy dimanche yowmal is nayi ni moo ci topp muy altine yàllaa fi nekkoon dara nekk fi woon ak moom gannaaw gi mu amal xaqatu muhammad yi feeñ lu am rek caaxeetu muhammad yi nga jógee yonent bi sallallahu alayhi ci altine la génn gàddaay dem madinatu munawara njëkk loolu ci la ci lañ ko rañaanee ci lañ ko yónni itam ci la génn àddina kon maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaama isnayni yàlla bayne jokk jox ko ma yow yonent sallallahu alayhi wasallam mu am mi nan ma di kuñ óoluloo yow mi xam jokk muy ku óolu feneen waxoon na ne fa anta muraadul kulli wal kullu wasilun fa mahma daraaka al abdu naala munaahu yow mi xam ne ñëpp yow lañ namm ku nekkaa ngi bëgg jokkoo ak yow te waxtu wuñ la jotee wu jaam bi jokkoo ak yow rek am la mbëgg bàyyi na ko yàlla nga ma jokk falam yàkku te nekkuma lii ñeel ma mi neen lii fa man xayri ka keneen ku dul yow di kuñ ma te man keneen ku amul ci man kóolut araani danga ma gis waraani danga ma gis ka xayri comme ñeneen ñi dun man man ak ñeneen ñi dun man laa ji an ñuy wéedu xend baabikum fa sa bunt bi man ak ñeneen ñi dun man ci bi nañu wéedu kon nun képp si ñoom xasee mu soxli aji màgg la ci laaj kenn ku nekk mi ngi wax lim soxla kon nun si ñoom yu daan dinu ñi ngi nguruntu ñi ngi baw كم تشاوليم موقف بدرين شتاوي بدر لا يزال دمدن تزكري لفاتني كفوفولا كم فاتنيكو إلا من قدا جمشنا كمنا يعمي حارنا مجنا يعمي دحار الضمار جبرجي ويؤمن تاي أولولو من جتاوي بدر duma dañ di fàttaliku soppe bi ki nga xam ne moom mooy óolu tegu mag gi te kum óolu loo nga óolu mujj sax di aar njaboot gi sallallahu alayhi wa xam nga ne ca Badar ak xare boobu nga xam ne xéeféer yi junni am seeni warowaay ak seeni ngàndaay bam mu doy jullit ñi nekkuñ lu may ñetti téeméer af ko ñett daal ñu sol sax amuñ ko yonent sallallahu alayhi wasallam ñuy awlante ak moom marzat ibn nabi marzat ba mujj gi ñu ne ko dañ lay ëffal nag yow nga war ñu dox waaye lan la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu mooy ne gënu leen maa dëgër te gënu leen maa doy li tam wani si yoonu yàlla maanaam ñun ñëpp yoonu yàlla ñu ut yoonu yàlla ñu ut comme yoon lañu ut nag gën leen maa dëgër wali si yoonu yàlla gënu may na doy li tam wali si loolu loolu lim lay jangal batay benen dars mooy dini lislaam du dine tok rek ñu ngi dina andil du diine yaafus du diine ko way comme li xew legi tok nek serigne ñi sëriñ ñu waroo def dara dina liggéey dina andin day nga du diine jooju diine yi góorgóorlu la ak diine yi fexe ba topp li la yàlla sant waaye du diine toog rek waaye xare boobu ñu xam ne ñetti téeméer nañ ak fa ñett ñe nekk junne ak seen ngandaay lu may kóolutee ci ñetti téeméeri af ko ñett bañ mën a jàkkaarloog junne bi mooy ni indi bi sallallahu alayhi wa sallam nekk seen biir loolu la bàyyi di junj li ma wax bi badrin laa yazaalu ila man gada yaxmi zimaara wa yuminu ataytuka yaa xayra alxalaayiqi mawhinan urajika tuxlinii wa xaaliya tuxsinu ataytuka yow laa dikkal yaa xayra alxalaayiqi yow mi gën ci mboole mbindeef mawhinan ci digg guddi ورجيكا ما يكارلا تعلني نكوين ما وتحسن تيرفة الحالي سمال من يولا دكتي قدي تيولا يعكاري تم غيرفة السمحال وتسفي يالنا سافرا سقامي سما جانغرو يالنا سافرا سمي سما جانغرو tajburu tajburu taj tajburu kasra tayal nangat jang samay dam dam feneen digon ngumena tabibi qaribun al siqamiya tasmau yuqabiluni yawmin al muqaffa al musaffa comme dafa bëgg dem rek di artu febar bi nan ko gawal nak sama soppi mi ngi jege kon kay bu demee ba yegg ci sopp bi jar na mu ñaan ko kon wa tax fu te yàlla na nga jéggal an aswaay ñaawteef yi daraal maay mi ni nga xam ne borom bi rek moo ko xam tabaraka wa taala marartu romb naa bi badrin ca badar bi furaysin ca furaysin téere baa ngi def bi furaysin waaye di furaysin furaysin la bi furaysin ca furaysin bi raabixin ci raabix ay barab la yoo xam ne booy dem mitin mën a war a danga ko romb lu tax mu romb leen jëmul ci ñoom li masjid yi ñeel juma am ji wal xarru tamit moom tàngoor wi muk manun luñ nëbb la fil xal bi ci xol bi gi ndax mi ngi yàggamti ngir bëgg yegg ci soppi bi cofeel googu lakk xol bi tàngoor lay wax والحر تميد مم تانغر بي مك منو لين نبولة في القلب في قلبي لكن يلنا لا العاد كلرة مني تكيج من يا رسول الله فإنني تنك من أحبك دنا ما بقنا حتى عينا با وقت ماي دفع أطفن دم دم أطفن دم سول في القبر زما بعمل يوم النبي صلى الله عليه وسلم am nga tukkee na ci man kulre goo xam ne man dañu ma di bëgg ba bés bañ may suulee ci suma xabru ci suma bàmmeel te ndax am nit ki nim dee rek lay dekkee feneen waxoon ne isan saraful waaruuna an dufni jussati an dafni jussati baqitu bihi aya ne min ñaqaayi buñ ñiy suul buñu soone suunee ba ne suun nañ Ibrahima mu ne man damay des di dund ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba bés may daje ak moom leen wax ne uxibuka ma damat xayaati wa in amut waraji baqa alxubbi xindi wala xiwal ndeysaan yuarriqu nii daf may fogloo ñàkk nelaw xub ka cofeel gi lay nii ci sama guddi ci digg guddi wa kayfa laa naka sax déet wala xasnu déet ak taar illaa yusaan lu may ommatu na li ka ñaan sa taar bi man ci digg guddi maa ngi maa ngi zihar di ñàkk nelaw def saxraana di la xalaat ngir sa cofeel gi taar boobu nga xam ne amul benn taar lu may ombatu na ñaar sa taar bi alayhi salaatu wa salaamu ñu ngi yàlla ak nuyoom yàlla nekk si yow ataaka dikkal ne la qadimun liggéeykat xaasirun boo xam ne gàttañu na sax wota moom muminun kuñ uliloo la alayka ya ayaa kanzal baraya nabiyina salaatan wa taslimun wa innaka ma'munu ay alaykal nekk si ayaa kanzal baraaya yow nàmbal mi ndif yaa nabiyana bi maanaa nabiyana yow suñu yonent bi sallallahu alayhi salaatan junni wa taslima ak nuyoo wa innaka naka yow ma'munun yaay rawukaay bi alhamdulilah suma salaamu ma ñeel benn mbelit gis yooyu di nga man awma ben benn ndam bu may denc wala melit lu may yow rek la yaakar alayhi salaatu wa salaamu wala xamalun den jëf mutqalu di ko xereñee ji bo bo xam dana ma musal min naar ci safara awma ma jëf benn jëf boo xam ni makoy jëf di ko xereñee musal ci safara lu man na yaw la bëgg sallallahu alayhi wasallam almaru ma man ahabba kon salaay sinema noonu mooy mayam alayka madal ayaami ma qaala qaadimun dumu ni ka raqraaqi nujayni tabarayna alayka yàlla nekk si yow madal ayaami di def fan yi ma qaala fekk wax na qaadimun liggéeykat dumu ka raqraaqi nujayni تبرحنو تبلي نينكوا آه، دموعي كرقراق النجيني تبرعينو اللهم صل على سيدنا محمد وسلم